teewaayam um, Thiès mom firndé la rek encore une fois ci pas-pas bi président Macky Sall am pour développer réew parce que lim fi fiy yépp yëpp boo bu ko ci Thiès Thiès a abrité mais c'est des infrastructures nationales même internationales parce que fu jangé jàngee ni ñuy yoree avion yeeg yooyu mbir yooyu du mbiri Thiès kessé bu dellu sé Thiès nak après un conseil des ministres localisé moy ñewna am lu mu def té lo gis day am jéxital dé am suite mu ci wat pour continuer euh ray bi ku ko tudd xamné du pour Sénégal kessé lolu lépp dal li ñu mëna wax moy li nga xamanté mom le président Macky Sall wat ci réew mi continuer les conseils des ministres délocalisés day poursuivre rek élan bi Sénégal jël moy djublu ci émergence djublu ci développement Sénégal waaw xam nga man euh, la ma daan wax lay wax ba tey gis nga ñun ñi ay jëwriñ lañ nek ci weti kilifa réew mi mu ñu naan fi la bëgg jëm fi la bëgg ngeen jaar pour yegg fa kon buñ fa yeggé dañu japp né mom la té loolooy dëgg donc euh, fekkee nañ fi biñu ñu ministre des sports mu am lu bari lu mu def euh, ndam yaangi continuer parce que ki am gis-gis bi moy président Macky Sall té mu ngi fi donc li ñuy wax rek moy lépp lu ñu fi def ci infrastructure li ñu war wax askan wi. mooy loo xamante ni bu manqué mu doon jafe-jafe ci askan wi su ko président lijjantee ba mu am na ko askan wi am fulaak fayda téye niñ ko war a téye mooy mën a gérer bu baax li nga xamante moom la ñuy mettre la disposition de sénégal tey jii bu amoon benn message booy wax waa Thiès lan nga leen di wax. xam nga nag Thiès moom dëkk la boo xamante ne c'est ma deuxième ville dëkk la bu ma respecté dëkk bu ma sop la parce que je compte beaucoup d'amis. Mm. li ñuy wax mooy cees kenn du leen jàngal dara parce que cees à part Dakar euh, boo limee doo ci lim lu bari boo tegul cees it leneen loo teg cees ngay teg kon Thiès euh, ay jàmbara fi dëkk ay nit ñu xam àdduna fi dëkk ay nit ñu bëgg seen réew ñoo fi dëkk donc lépp lu fi ne li ñuy wax rek mooy Thiès dëkk la boo xamante ni Sénégal di doxee daf ci compter kon à de Thiès surtout la jeunesse du Sénégal la jeunesse de Thiès. lépp lu ñu jot a a def cees parce que Thiès dëkku jàmm la dëkk la boo xam ne buñ bañ jotee mu bañ waaye bu jàmm jote it kenn du ko ëpp jàmm te réew mi ci jàmm la jëm ci jàmm la ne ci jàmm lañ koy yóbbu kon li ñuy wax rek mooy nit ñi nañ booloo joxante loxo pour le développement de Thiès gunge président Macky Sall ci élan bi mu jël ak ci fas yéene gi mu am pour defar réew mi kon defe naa ne li ñu gis bi ñuy dugg si wane na ne le message a été bien perçu et puis li ñu fiy def comme jumtukaay mu jëm ci askan wi askan wi wane na ne yëg na ne loolu ñu ngi koy def te defe naa ne liggéeykat bu ne li ma daan wax bi may nekk ministre des sports mooy lépp luñ la dénk fexeel ba boo jógee ñi ñi nga xamante ñoo nga ko seqal jóg sooy def it mu nekk mbégte fexeel ba ñi ngi ko ñi ngi ko ñi nga xamante ñoom ñoo tax nga di ko def yëg ko kon tey bu ñu dugg si woon mu am une petite mobilisation Euh, on aurait pu poser des questions est-ce que ñun politique bi nous def dugg na ci xolu nit ñi c'est le contraire Nous nañ ne ce président Macky Sall def ci fait. mi sénégalais yi mu koy defal sopp nañ ko apprécier nañ ko positivement donc li ci des mooy poursuivre le travail. Ah, waaw xam nga euh, ñun politique moom. pas moom nit la bëgg. waaye lii dafa rax. parce que du ñëwuñu meeting si. dañu ñëw liggéey si. donc le président est si. vous avez vu le maire de Thiès. Tak Bandoum légui la fi jógee kon koko xam nga né momi tamit ñëw na féké si li nga xamante moy mooy njiiti réew mi ñëw fi pour le développement kon tay au-delà de la mobilisation politique c'est mobilisation askanu ties yépp la sans euh, parti pris pour woné né li ñuy def si njëriñ la pour képp ku dëkk ties njëriñ la pour képp ku dëkk Sénégal defe na né lool nak képp kuy liggéey li moy sa jaajëf mobilisation bi li muy qui politique li muy ci li ñuy ñun nit fekk la ci courage donc loolu lañ féliciter l'ensemble des responsables de Thiès féliciter jigéenu Thiès féliciter Thiès toute la région de Thiès parce que ñepp a won président Macky Sall ñu lay dalal pour le développement de cette région. xam nga lii boo ko gisee euh, benn nit defaru ko benn nit defu ko euh, dès le départ bi ñu jotee xibaar bi jot ndigal ci lañ monté comité de pilotage régional nga xam ne euh, man maa ko jiite préfet yi nekk ci maire yi nekk ci. ak yeneen technicien nekk ci mais loolu c'est le grand comité de pilotage léegi nag euh, day am comité li ñuy wax comité technique restreint nga xam ne nii ñeenti technicien lañ muy ma dénk ko directeur ARD ñi am ñu ko wër ay kàngaam yu ko wër euh, service chef service régional aménagement territoire chef service régionale planification chef service régionale agence statistique mooy le régional de l'ANSD ñooñu ñoo ko ñoo ànd ak moom may joxe ay orientation ñuy liggéey ci lañ génne nag document document bu nga xam ne biñ ko génnee ñu xool ko dañ ko élargir waat encore woo ñi ñu war a woo yëpp ñu càmbaraat ko bane ne baax na dina baax na ñu yónnee ko kilifa yi ci kaw yemuñ foofu dañ ko dañu woowaat ci kaw xoolaat ko xoolaat ko mooy document bi nga xam ne nii euh, soumettre nañ ko kilifa gi nitu réew mi bu suba ah ñu ñu ñu ñu exposé ko ci kanamam ci lañ tënk lépp décision bi mu final nag président ko yore ñun dañuy tënk rek mi li li muy jël ci ndogal moom moo koy jël moo koy jël donc daal liggéey bi noonu la noonu la noonu la demee ci wàllu nag euh, teeru bi nga xam ne nii teeru bu mucc ayib la boobu aussi liggéey la rek liggéey la dañ ci liggéey ak service yi surtout lu ci sécurité bi liggéey ci ak euh, ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo yëngatu ci dëkk bi fii ni mu yànjee gis nga niñ ko setalee niñ niñ defaree fii ni mu ni mu mel du benn nit moo ko yor gouverneur ab animateur la rek mais ay ñu ñu bëri ñoo nekk ci gannaawam man sax ñooñu am ñu nga ne ne fee ñu ñu kenn gisu leen te ñu ngi liggéey liggéey bu am solo voilà loolu daal ci tënk mooy préparation waaw programme bi moom suba ci suba dix heures conseil présidentiel Moi, Paul comme comme région bi càmbar ko président de la république joxe ay orientation une décision yi mu war jël pour ñetti at yii di ñëw fan la bëgg a région Thiès mooy li ñu war def tey suba conseil présidentiel sur le développement de la région 16 heures conseil des ministres conseil des ministres boobu nag mooy valider lépp la nga tënk nañ ko ci conseil présidentiel bi nag mu dugg nag ci biir département yi def ay inauguration euh, dana inaugurer l'académie internationale des métiers de la civile visiter aéronef ya fa nekk yooyu yëpp bu fa jógee mu inaugurer école nationale des sapeurs pompiers inaugurer université Iba Der Thiam après dem Tiwaawoon poser la première pierre ou non lancer travaux euh, autoroute Dakar Saint-Louis Ici, tout Ce ga di samedi mu dem euh, euh, Mbour visiter le chantier sanctuaire marial Popangin, ab fa inauguré centrale solaire bu malikonda après d'une visite dit réalisation Promoville il Mbour pour la visite bi di jexé ñu sommes yalla sante nak président Macky parce que ku nit day parce que ci ci nit ñi la koy 2012 ba le président Macky Sall def na fi lu lu am solo lu nga xam ne ñëpp teg seen bët xam nga looy werante mooy loo mais lu ne dàng moom kenn du ko werante yéen bi ngeen di ñëw gis ngeen changement yi am ngeen autoroute yi ngeen di jaar ah gis ngeen bi ngeen xoolee seen droite gis ngeen euh, AIBD nu mu yànjee ngeen jaar ci autoroute yi moo am ay ay ay sortie bay somoon ay mm, Popenguine yooyu yëpp gis ngeen ko euh, ngeen continuer jëm Ila Touba gis nga ba jàddee Thiès gis nga aussi kii boobu voie boobu ñu fa def te yemul foofu euh, fàtte naa leen wax sax ne euh, dana am ci lu lu lu lu lu yàgg wax naa ko sax sànq autoroute mu nga xam ne ni day jógee Dakar jaar dem dem Tivaouane dem Saint-Louis ñu ngi waaj a prolonger aussi à partir de Mbour autoroute bi mu dem ba Kaolack ci walu euh gi nga pooru ndayal légui mu démarré euh ci walu chemin de fer dana lancer travaux réhabilitation Dakar Thiès Tamba une valeur de 18 milliards donc kay comme ni ma koy waxee air mair terre fer foo ci bëgg rek mën nga jaar dem ci biir réew mi wala nga dem Dakar léegi da nga gis sax moo xam ne ni fi lay dëkk bu subaa mu ndekkee ah, euh, dawal otom ndànk dem Dakar liggéeyi bu ngoon jotee mu wàcc donc loolu je crois lu ñëpp teg seen bët la sans compter nag réalisation ci wàllu mbay ci wàllu càmm ferme agricole yu bëri ñu ngi fi sans compter réalisation ci wàllu industrie industrie mine yi bu njëkk ICS rek lañ fi doon wax léegi yeneen société ñu ngi fi SE Force GFOS ko bu nga xam ne ni moom mooy defar zircon ah lu mat euh, ñaari cimenterie ñu ngi fonctionné keneen Dangote am na cimenterie bu bees bi waaj a ñëw ciment d'Afrique am na beneen bu ci topp muy xéewal donc loolu lépp daal wax dëgg yàlla euh, nekk na euh, ay richesse yu nga xam ne créé nañ ko te loolu boo ko créé rek ndaw yi ciy liggéey ndaw yi dañ ciy liggéey donc daal ñu sant yàlla bu baax sant président Macky Sall ah euh, di ñaan yàlla lii mu sumb nii mu yàggale ko ci jàmm.